arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi Pulum Junior tekk jël Tekk ngi noonu Pulum Junior ak Tekk Jëng arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ Pulum Junior Tekk Jëng arbitre bi laaj na ay siisam laaj na Tekk laaj na Pulum Junior arbitre bi sifflé na ak mam ak leneen ak leneen ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar teex a ngay ci réew ak a bari la bëreel teex a ngay jat yaar naa la teex lu mu def nii jat na ba génn teex am na benn avertissement Pulum Junior tekk jël Pulum wàcc na tekk Pulum Junior eh tekk sa xeex ba yaa nga téléphoné Pulum Junior tekk jël Pulum Junior tekk jël tekk cokkaas na léegi Poulique Junior jël na tànk teq-jël Poulique Junior jël boobu jël baax na Poulique Junior teq-jël teq doo teq bul doo moo ko bëgg a tegal 16 Poulique Junior teq-jël teq wàcc na teq wàcc na Poulique fa mu bëgg a jàpp fa jàppee lu muy liggéey day jugom du jóg day jugom du jóg Poulique Junior teq-jël oh da koy daan wala lu mu koy def. Pulum Junior teq ja daan na ko waaw waaw doole doole Pulum Junior bu bopp doole takk na ko tegal ko seen Pulum Junior daan na teq ja bàyyi na teq nee na bàyyi na teq nee na bàyyeeti na wala boog bàyyeeti na. <laughs>